ahlan bikum Idrissa Seck fa fori neew ndax njiiti réew mi Macky Sall fa ko kajji dàq mook ay ministre am ci gouvernement bi mu dem ca kujje ga opposition bi ñu ne ko ñun soxlawuñ la bokkoo ci suñ biir ba tax turbine yéene kaay na Idrissa Seck xay pexem yàqu na de fa daanu ba xalangu l'évidence yéene kaay na ko hée faa bëgg nga def ndànk de ndax man faa foog ne njiiti réew Macky Sall ñàkk gi mu ñàkk Idrissa Seck ci wetam danger la baaxut ci moom ak koo xam ne fa ngaa bëgg troisième mandat bëgg dal ci réew mi naka benn bokk yaakaar fi mu toll léppay jaxasoo l'observateur na ko ànd ak loolu yëpp Idrissa Seck moom li ko dal fi mu toll nii baaxut de ak ku jégi opposition bi fañ koo beddi na ko bokkoo si ñun Sonko koy xuri docteur Abdourahmane Diouf fa koo kaata info yéen kaay na docteur Abdourahmane Diouf kay fa wax Idrissa Seck boppam teg ko place na ko yow mën nga daal bu la neexee nga nekk ci ku jégi xëy dew fekki Macky ànd ak moom suba nga génn naan ci ku jégi laa bokk yëfu caaxaan-caaxaan yooyu bi taxul njiitaram Macky Sall andi benn coppite moom ma ngay gàttal fa ñoo foogoon fa ñu amal remaniement waaye Macky fa gis na jarut ko xam nga nu mu defam moom jiitira Macky Sall fa jël Abdoulaye Daouda Diallo na ko kaay nga remplacer ma Idriss Seck ca bopp conseil économique ba pare fa xëlbati jël Amadou Ba premier ministre na ko faa bëgg nga yoral ma ndomba tànk yi nga xam ne ministre Idriss Seck yi moom lañ yoroon mu Yankhoba Diattara sport ak Ali Saleh Diop élevage a la ko yor fay a kaay na ko deltu ginnaaw ah gaa yaa ngay démissionné rek benno seen affaire baaxut fi mu nii de leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Ousmane sonk tontu na sa Seck bii wax naan yoo yaay mooy chefu opposition moo leen jiite ku jégi ah, yow seetal Sonko fa wax ne waa Côte d'Ivoire fa ñuy faral di wax ne xar yëpp fa ñuy doxantu ca mbedd Abidjan ya waaye xar yëpp yamuñ prix nee na man Sonko xëccoowuma chef de l'opposition déedéet te kum neexit na man la waaye bu ñu wàccee ci bi su boobaa danañ xam kan napp ak kan moo jël ndaare sur du quotidien mais ko daan ko faa foog ndaare bi idi lay doon de ah yow fi mu toll nii diggante moom Macky yàqu na c'est fini intaha amatul benn ndomba ci gouvernement bi ba pare kujje gi waxuñ ci moom dara Abdoulaye Daouda Diallo sax moo ko remplacé léegi ko yéen a kaay na ko voilà Abdoulaye Daouda Diallo boobu nag fi mu toll nii mooy ponkal mi l'homme fort Abdou Mbow ne ko am kóllëre moom Daouda Diallo te fa xarañ le soleil yéen a kaay ne gouvernement bi ak conseil économique ñaari institution Amadou Ba moom njiitu jëwriñ ko yeboo yërëm ko a tabaski baa ngi ni di ñëw ak Coupe d'Afrique bi loolu yëpp moo ko war a lijjanti léeg ko yéen kaay di ñu xamal na Abdou fa wax na fay génn benn bokk yaakaar PS ca diwaanu Kaffrine te lu ji njaaga nag nee na Ablaye Sow la fa ñaaw doxalinam <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Ousmane Sonko fay tàmbali nemmeeku tuuram bi le 24 ba 27 avril bii Ziguinchor ak Bignona la koy amalee le 29 avril ma nga jëm Tivaouane jàpp Thiès ak yeneen info yéene kaay na ko voilà nemmeeku tuuram boobu mu nar a tàmbaliwaat yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci njiitëram Macky Sall ak sénégalais yi ah, yaaw seetal Sonko fa wax ne février 2024 ci leen fas yéene soppi Sénégal dëgg-dëgg suqali bu Sénégal moo tax muy nas ay pexe ak yenn magistrat ngir bëgg maa tere bokk jaare ko ci wàllu yoon waaye faa koy xamal ne suñu fexee ba génnee ma 2024 na du bokk faa bëgg mu xam ne élection booba du am Sénégal fay leer nee na ñun bëgg nañ jàmm waaye ku ñu may jàmm rek am jàmm ku ñu xañ jàmm rek yooyu doo am jàmm lii rek la faay ñaan timit sénégalais yi ñu dem bindu ci ci liste électorale yi Malick Gueye jiite parti bi ñuy wax populaire ci tribune yéene ne Ousmane Sonko bokkut ci Bougane Gueye Dany bokkut ci Khalifa Sall bokkut ci Karim Wade bokkut ci ñoom sénégalais ñooy tànn ku leen doy c'est tout Alioune Sarr bu AFP nee na moom candidat la 2024 waa grand place yéen a ñu ko xamal enquête yéen a kaay moom di ñu xamal jàppante ya amoon ca ngor lan moo ko andi gendarmerie seen delluwaay ba fay xam ndox bu yàlla ji tawee inondation moo tax ñu bëggoon a tuxu déggoo bu njëkk bi nag ñoo ko waa ba ñoo ko amal août 2022 te terrain boobu andi coow li mairie ba moomul ko de état bu Sénégal ko moom bés bi yéen a kaay di ñu xamal ne mbootaay ñoo taxaw temm ngir ñu bàyyi Pape Ndiaye journaliste bu Walfadjri ba ñu tëj kaso fa ñuy xeex ngir mu génn léeg si ko a kaay di ñu xamal ne cour suprême fa gàntal càkkutéef Ousmane Sonko ba tax fi mu toll nii bal bi mi ngi ci loxo procureur maanaam diggante mook Adji Sarr yéene kaay bi nee na procès lañ jëm de leer leneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne abib Diallo ma ngay toj France de dugal rek stade yéene kaay ñu ko xamal Sadio Mané nag bayar na ma ngay xaw ca tànk jaay ko sunu làmb yéene kaay ne Balla Gaye 2 mi ngi ci danger boo moytu Eumeu Sène fa ko nar a mbuqiwaat muy ñetteel bi yoon l'observateur jox kàddu benn animatrice bu nekk TFM Awa Guèye ma ngay leeral métit fitna ji ko jëkkëram doon <laughs> yow seetal nee na sama jëkkër fa ma doon jàpp di ma mbuqi ku ma daan dóor ba may bëgg a dee fa may gaañ xam na sax benn jamono faa ëmboon wan na lor ba toll ci juróom-ñaari weer fa maa dóor gaañ ma ba ma mujj ñàkk sama doom ja aay hmm, waa ma ne képp ku xool ci sa yaay waroo fitnaal wala ngay méttital jigéen soo xamee jabar nag na nga bëgg mu mel melut ko fa nga koy fasa rek mu seeti keneen jàmm na ñooy fa xam góor ñoo xam ne jaruñoo sax may jabar